Pape Birama Diallo ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay gërëm. yow yaay chef département dialogue social négociation collective bu UNSAS daanaka juin 2024 contrat bu concession Dakarnave dafay jeex waaye dégg nañ kàddu yi nga xam ni ministre bi dal na ko yëkkati sunu antenne ci rajo bi fii Pape Sagna Mbaye nee na li nga xam ni moo jëm ci contrat boobu duñ ko renouveler ndax li nga xam ni moom moo jëm ci entreprise bi lan ko doon sant ak la mu doon indi ci ay redevance yëpp matewu ko looloo tax euh, Lisnave moom kenn wu renouveler contrat bi lan mooy sa réaction bu njëkk ci wàll wi ni mel. waaw di ci am euh, bu mag dama demee ni buy dem bay yëkkati kàddu yu mel lu mel ni média euh, war na ko set parce que partenariat solo ci réew euh, Sénégal bu mu soxla ak mille cent quatre-vingt-dix-neuf benn wuy si muy licence boobu accepté liggéey ak du Sénégal pour relancer le chantier de la réparation tabac kenn bëggul woon am ay bor yu am solo yoo xam ni agence française de développement moo ko lebloon Sénégal ah lis na fay ko Dakar naa fay ko mu jeex tàkk bor boobu léegi nit même bu fekkee boo ko gërëmul bu xalab da nga naan contrat xam na le gouvernement du Sénégal am na droit am na droit renouveler jox contrat ko neex ku sopp la base nag ñun li ñu wax passation de marché public dafa am ay normes lépp na jaar na leer bu mu jaar àll bu lëndëm na jaar àll bu leer ñu jaareloo ko li code de marché public wax bu boobaa ki nga xam ne moo gën Sénégal gën ci liggéeykat yi bu booba confier li nga xam ni mooy chantier de rénovation navale pour l' intérêt exclusif Sénégal ak ak liggéeykat Dakar euh, naag dafa naa ni loolu moo gën am solo ci wax xam nga nit ñi booy wax da nga naan ñi nga leen di gërëm ñi leen di sant wante nag am nañu peut-être loo war lañ ko mën a jeexaat ci biir am amuñu satisfaction totale parce que redevance bi tuuti na new na cinq pour cent vrai tuuti na man waxoon naa ni chemin bu démb mënul nekk schéma bu tey 1990 ak léegi 99 période euh, politique d'ajustement structurel nuroowul ak jamono bi nga xam dañuy wax ni Sénégal mi ngi nekk en quête de de de d'émergence kon mënuñu boole ñaari yoo xam ni boolewul contrat ba ñu defoon 99 mais mënul nekk contrat valable en 2004 loolu ko xalaatu ko léegi nag dañu marché la. mais bu amee koo xam ne am na offre bu am gu gën a am solo pour réew mi mais bu boobaa kooku kooku kenn mënul wax xalaat ni duñ ko ko jox bu dee léegi ubbi dagaan na waruñu bet kenn waruñu dàq kenn nañu ubbi nañu yaatal Sénégal loolu la mus a bindoo noonu la mus a doxal mais doo braqué wu jël benn position mu mel ni yow da nga feneen foo xam ne wax nga wax jëmale sa boor ba pare mu dëll après yow ñeneen ñi nga jëm leen écarté ci loo xam ne tegu yoon ñoon c'est un pays de teranga xamuñu loolu c'est pas des des actes yoo xam ne da nga koy wax sax koo koy def sax am na un peu de diplomatie waaw loolu daal baax na euh, di ko def waaye façon baaxul parce que sénégalais yi ñi ngi parti di liggéey dans la diaspora nekk ay partenaire di nekk ay nekk yeneen réew di liggéey correctement di daan son doole boo demee boo demee Portugal sénégalais yi bari nañ fa kenn su leen bul xatal la ngay dégg ci yeneen réew mënoo ko dégg tey jii ca euh, Portugal donc booy wax da ngay sa kàddu li ngay wax bu baax voilà. ci geneen wàll gi mi ngi dalal xel yi ci li nga xam ne moo jëm ci liggéey yi nga xam ni liggéeykat yi war nañ ko am ca bërëb boobu bi ni mel wala ba tey loolu dal seen xel te liggéeykat yi sax nee nañ mbir mi est-ce que am na appel d'offre. non loolu bon moom moom bu loolu dañuy toog wax ko xam nga loo xam ne le président de la moo ni maa woote dialogue social instauré ko ci réew mi wax naa la ko depuis 2014 après mu delluwaat waxaat ko en deux mille euh, deux mille euh, deux vingt président de la république mu dama sant naa gouvernement ñu jël dialogue social def ko mode de gouvernance président de la république au conseil des ministres ministres yëpp war ci wéy donc looy def rek war nga ci booleeg njaatige yi war partenaires sociaux yi war ci wóor liggéeykat yi seen i représentants ñu bokk toog ñu bokk xalaat waxtaani ko pour le bien du pays fii du affaire intérêt intérêt réew mi askan wi la donc lu ñuy wax dañu ko war a pénc péncoo waaye waruñu ko pàccoo comme disait Momar Samb donc yëf yi liggéeykat solo am nañ ci wàll am nañ ci xalaat gis-gis dañ leen ci war a appuyer ci war a bokk ci la ñu bokk c'est à part entière ils sont pas des Sénégalais ah, ah euh, euh, sont pas des Sénégalais mais des Sénégalais par ailleurs et non des Sénégalais qui ne sont pas intégrés impliqués euh, dans le dama de dama yaakaar loolu njuumte la ci wàllam li nga xam ni moom moo moom la liggéeykat yi laaj mooy nañ leen wan marché ñu defee passation de avis de marché avis de passation de marché leen ko wan ñu xool ba xam ne loola am na la amul mais on est dans un pays de transparence comme nee na am na ko génne ñu xam ni kat lii marché am na lancé nañu appel d'offre appel d'offre boobu am na def nañu publicité jaar na fu mu jaar yëpp organisme yi nga xam ne ñoo yore régulation jot nañ ko xam nañu nu mu war a demee maintenant marché public doo beddi kenn dañu wax ni libre accès dañu wax ni égalité dans la structure et dans la trans loolu la ñuy wax ci code de marché public boo boolee ñaari yooyu waa c'est plus wante mënoo jël position mu mel ni yow da nga da nga préfère def sa benn entente ak benn opérateur wala benn concessionnaire waxtaan ak moom ba pour ñëw nag bëgg a yeew nit ñi loolu nit duñ ko nangu tey ko nangu ëllëg parce que secteur secteur bi daf dafa am difficulté bala ngaa wax secteur pétrole gaz secteur bi nga xam ni yow moom lañ la confier muy secteur de la pêche mais secteur bi dafa nermelu donc loolu la ñu war a jëkk jubanti nañu toog ñu xay xayma secteur bi auditer secteur bi sur le plan technique ñu xool secteur bi lan la marque problème de marché problème bi tey ji réparation tabax buñ ko mënee xàccee sa xat ñii mais la le problème qu'on va se poser mooy problème de marché waxuñu ay gaala looco looco yii de dañu wax ni ay bateau yu mag yu war ñëw ñu leen di réparer lii loolu problème de marketing la du affaire bu ndaw kon booy jël benn firme international war na am expertise war war na am quand même portefeuille bu ko permettre muy mën a ñëw andi fi ay bateau waaye jox seen ba bi li liggéeykat yi seen traite mooy ñu dem ñaari weer weer wala at affaire bi taxaw seen salaire yi wàññeeku ñu commencé dàqe loolu rek nit ñi loolu lu nit ñi loolu garanti wala ñoo mën a am benn garantie dañuy ubbi seen bët xool ñu jox leen lu doy waaye du loo xam ne déclaration par euh, l'entremise de la pêche nga wax ni wey dinañu garantir salaire yeeg yooyu yooyu wax la rek mais ñu ko xayma ko pen dañ koy bind xaatim ko bind ko ku nekk xam ni lii moom lañu ñu jàpp mu na nag tu xool bu ko defee ñu mën wey liggéeykat yi seen xel dal ñu xam ni jàmm dekk na waaye nag euh, wax nii rek yomb na ñu ngi ñaan yàlla nag yooyu peut-être gannaaw suba ñu def élection yu mucc ayib Sénégal retrouvé bu am jàmm mu nekk réewu jàmm ñu am gouvernement président bu bees am gouvernement bu bees ñu ngi ñaan yàlla tamit président Amadou Ba euh, premier ministre Amadou Ba yàlla may ko la léegi UNSAS moom lan moo war a nekk taxawaayam. l'UNSAS organisation majeure mat yaa ngi dégg du ñuy jawaatle xam suñuy responsabilité ñun Dakar naa fa ak léegi mille cent quatre-vingt à nos jours nekk créé fa syndicat unique muy SATNAF du leen gunge am na ñu doon manipuler liggéeykat yi ba am ay problème du leen dab te loolu lépp lu ko at mooy problème mu sirnu depuis Samba a ak pour di manipuler redevance bi tuuti na mais redevance bi bu tuutee mais état état dafa doole mais ñu toog ñu wax am na jamono boo xam ne nañu réviser contrat bi moo nañu permettre ñu réviser contrat bi yokk mën nañu ubbi capital bi Sénégal dugg ci partenaire dugg ci mais mënoo jël position léegi kii du ci bokk damay dàq kii damay jël ku man waaye wut ku la neex loolu Sénégal amu ko Sénégal n'est pas un pays de traite parce que quatre-vingt-dix-neuf à nos jours vingt cinq ans di nekk di liggéey ba yëkkati chantier bi ba tey jii mu am benn performance ba xam ni ku nekk bëgg na ko nekk un fleuron de la réparation navale am un label international képp ñëpp ko soxla nga ni léegi dama koy dindi beddi mais boo ko mën nga ko dindi mu dem feneen kon Cap Vert mi ngi fi am côté lu mu am ci marché yëpp koy jëlee Cap am ay gaalu ñu dawal weer ñaar weer gars yi mënatuñu sax fay salaire sànc bi taxaw la daloon mille neuf ak si waat loolu rek mooy crainte c'est le syndrome de Dakar Marine loolu la liggéeykat yi tiit donc nañ leen boole nañ leen ñun une dañu wax ni bu ñu ubbee waxtaan ñu teg affaire yi sur des critères rigoureux muy règle de transparence euh, procédure d'accès libre liberté d'accès donc au marché public mu nekk dans des conditions de transparence d'équité d'égalité de chance mais amul problème ak nan l'expertise la meilleure offre bi nga xam ne moo présenté meilleure offre sur technique ak financier bu ñu ubbee euh, pli yi bu gagné ñu xam ne kooku moo gagné kooku la Sénégal soit sûr pour mu mën ko doxalal sage réparation amuñu ci fixation ki am fixation ma ni damay génn damay beddi Sénégal nag musul loolu du ñu dëkk warkat du ñu dëkk traître ñu def loolu et je présente la République au plus haut niveau ak le premier ministre sont interpellés parce que ñoom ñoo yoral dëggal guy gi ñoom rek la baat ak seen acte compté keneen compté wu beneen bi mooy gis nañ syndicat jafe-jafe yi nga xam ni am nañ ko ñu ngi wax SYTJUST syndicat euh, travailleurs collectivités territoriales yi ba tey ñu ngi seen ay mouvement d'humeur ba tey euh, waxtaan wi dafa mel ni sottiwul yéen bokk ngeen ci syndicat yu ëpp doole fii ci diwaan senegal alors lan la ñu war a mën a jàppandi ak ci biir coalition bi. Euh, le Ba dafa recevoir ñu waxtaan ak moom. ba mu jël ay engagement ñu am benn plan boo xam ni moom ñu tegoon ñu war a régler problème yooyu nga xam ni am conflit dans les secteurs euh, am ay rencontre sectorielle lu mel ni justice lu mel ni collectivité territoriale ak seeni autorité de tutelle ñu war a toog pour la supervision du premier ministre ñu régler problème yooyu ñu joxoon rendez-vous fin ñu war a toog def évaluation globale ñu xool fan lañ ci toll lan moo des ñu te exécuté ko lu ñu exécuté lu des lan ko waral ñu war a tax ñu waxtaane ko ba juboo ñu mën a continuer wéy loolu jàppoon ko amoon ci yaakaar mais malheureusement événement yi nu mu ñëwee nii ak changement moom moom campagne bi dem euh, élection date bi donc le vingt mars loolu tax na peut être daje ba war amul waaye am nañu feesul bind nañu ministre du travail mi nga ngi soog wax nañu ko dinañ ko nañ ko ci nomination bi mais wax nañu dañ ko am jotaay ak moom bokk toog yëkkatiwaat ponk yooyu ñu toog waxtaane ko buñ ci juboo xayrul buñ ci jubóowul tamit ñu am nañu dogal lu ñu yoon may ñu dépose ñu def une procédure de préavis de grève est-ce que liggéeykat yi am nañ ak yi ak ayu président de la république Macky yu bari yu bari wax dëgg yàlla dañu ko rendre homme ngalaama président de la république c'est un homme de dialogue très ouvert bi mu ñëwee toog euh, euh, mandat bi mi inauguré ci loolu ci dialogue social la promotion du dialogue social ñu organiser benn première conférence sociale sur le dialogue social trente loolu président de la république jël engagement ci la ñu à soixante ans ci la ñu amee augmentation généralisée de ci la ñu wàññee fiscalité sur les sur ci la ñu wàññee loyer ci ñaata yoon ñetti yoon augmentation de dans le secteur ñeenti yoon augmentation de secteur privé am ci relevé ci SMIC bi ya créé au conseil du dialogue social loo xam ni euh, njaatige yi ak liggéeykat représentant liggéeykat nekk na lu ñu war ay sujet ñu war a toog ay thèmes yu ñu war a toog waxtaan ñu bokk am kuréel boo xam ne dañ toog du waxtaan loolu avancé la dans le cadre du professionnel dans le cadre du loolu avancé la ñu am convention collective nationale interprofessionnelle depuis 1982 à nos jours musul am révision musul am modification ñu def conclusion collective bu bees liggéeykat yi yu bees ñu tolli ci depuis 1982 musul am SMIC bi musuñu ko relever ñu relever ko ñett yoon ci magistère président de la république ngàcce garaam génne a subventions pour les centrales syndicales ñi nga xam ni ñoom ñoo les centrales les plus représentatives organiser des représentatives te ñëpp d'accord ci résultat yi ñu continuer di avancer discuter di négocier di concerter wu trouver ay solution loolu président de la moo ko wax euh, au mois de de euh, deux mille vingt instauré li ñuy wax euh, dialogue social comme mode de gouvernance des des relations non de travail mais pour le travail du gouvernement loolu président de la République moo ko kon nag képp ku bëggoon jàppale président da ngay ànd ci wax mais bu fekkee ne dañuy tax béykat fedd leen ci yow décision yi ngay jël c'est pas des décisions concertées soo benn njaatige yore benn secteur normel secteur na bu kenn bu taxaw wax ngay wax lu lan boo waxee koo xam ne ay kasaw kasaw la dañuy taxaw wax la ne loolu d'accord ñu teg kaw dañu bëgg ñu dellu si xam raison la Sénégal bépp ba xar ñaar yaa am nañu yàqal bilan président continuation liquidation la ñuy wax amélioration loolu la ñuy wax pour que ñu dem émergence. ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax Pape Birame a jërëjëf di fàttali ni yow yaay chef bu département dialogue social négociation collective bu UNSAS. jërëjëf Mbemba UNSAS. jërëjëf Mbemba